mais Bafou Sam. li nga def déedéet la nga def Bafou Sam. defoo ko Qatar. Badou Bafou Sam dafa ami Sam inoubliable dafa dafa bàyyi Sam daa baax ay Sam. ay Sam yu rëy ca Bafou Sam. avocat <laughs> Diouf. coach coach bu ñu coach sa dossier la yoroon xam naa ne coach dina réagir léegi nii ci téléphone bi di nuyu bu baax a baax sama sama sama sama waa ji moom moom mi jàkkaarloog man lui moom nga xam ne nii euh, mooy sama. mooy sama kii mooy sama ni nga koy waxatee ange gardien bu affaire yi xawee gàllu gauche ci wàllu santé gi. Mhm. moom mooy mooy jël caméra bi ne ma kañ dem. Mhm. lui maa ngi lay nuyu bu baax a baax je suis très fier de de mhm. jàkkaarloog yow Kéba. yow mi ci rukk bi aussi maa ngi lay nuyu bu baax a baax toorodo bi ak Tempende Diallo ak toute l' équipe derrière mm-hmm. alors docteur ñu gis ne que vraiment euh, l'industrie pharmaceutique euh, jamono ji dafay jànkonteel ay jafe-jafe euh, parce que euh, également association sénégalaise de l'industrie pharmaceutique bi nga xamante ni yow sax bokk nga ci membre mercredi passé il y a de cela juste une semaine euh, def nañu ab conférence de presse ngir alerté sur la situation bi nga xamante ni industrie pharmaceutique bu Sénégal mu ngi koy jànkonteel bu ñu mënee dikk un peu ci déjà industrie pharmaceutique au Sénégal mu ngi mu ngi dox dox boo xam ne jar nañu toog di alerter naan ndax mu ngi nekk ci souffrance wala parce que man j'avais l'impression ko sax au Sénégal j'avais pa ne si tout tout yëpp dañ ko doon def benn importation loolu laa yaakaaroon. <coughs> jërëjëf Aïcha effectivement euh, ASIP donc organisé benn conférence de presse pour euh, wax ak euh, le président de la République. Mm-hmm. parce que moom moo moo jiite Sénégal et dafa bi ñu jugee ci Covid 19 bi. ñëpp gis nañ ni Sénégal amoon na problème ci yenn garab yi comme adduna bi yëpp d'ailleurs euh, donc euh, bu mbas bi ñëwee donc daf ñu jàngal ni euh, dëkk bu nekk da nga tëju sa bopp pour mun a faj say say say waa kër donc chaque fois bu amee crise donc forcément loolu réflexe la mais li mu wane ci Covid dafa dafa wane ni ñun surtout Afrique la gën a problème bi ci ñun la si ñoon la gënoon a métti mm-hmm. euh, bi ñu ci jógee donc euh, le président donc euh, def benn diagnostic à travers le cabinet McKinsey mu xool diagnostic de l'industrie pharmacie sénégalaise mooy mm-hmm. ne dafa bëgg ñu am souveraineté pharmaceutique d'ici 2035 alors bi ñu ko bi ñu ko defee ñu def en octobre 2021 def benn organisation boo xam ne fii à Dakar pendant cinq semaines mm-hmm. lépp lu nekk ci santé ci industrie pharmaceutique ñu boole leen ñu def ce qu'on appelle un plan de relance mm-hmm. plan de relance bi mooy yi nga xamee ni que fii industrie pharmaceutique sénégalaise dafa di loo xam ni bariwuñu te it néew la mais dëkk mënul développé te amul industrie pharmaceutique li koy mm-hmm. findeel mooy euh, xam nga Sénégal premier président de la république mooy euh, Senghor Senghor euh, bi mu toogee xam ni dëkk mënul avancé sans industrie pharmaceutique ci la euh, defay pexe ba ñu créer SIPOA. Mhm. SIPOA moo nekk fii ci yoonu route de Rufisque bi. SIPOA ndeysaan. Hmm, moom moom moo continuer ba nekk Houphouët-Boigny euh, nekk fii ba léegi mu tudd Médis. Médis te ñetti weer at yi passé gisoon Médis ñu ngi jokkoonte na ngay problème. Mhm. Euh, am na beneen pharmacie boo xam ni euh, Teranga Pharma ñu ngi ñëw nañu depuis 2019. Mm-hmm. loo xam ni ay pharmaciens sénégalais ak ay médecins ñoo ko ñoo ko taxawal. Mm-hmm. donc Pfizer moo fa nekkoon. donc 2017 nga gis ni amoon na ñaari multinationales yu fi nekkoon. fi mooy fi Médis nekk. Mm-hmm. ak Pfizer fii euh, Teranga Pharma nekk. ñooñu ñu ñu dem. li leen tax dem kon war nañu poser question ñii lu tax ñu dem. ay te ñooñu am na ay koppar alors. lu tax ñu dem parce que fii pour liggéey fii def industrie pharmaceutique génn ci dafa di loo xam ne lu jafe la te li tax mu jafe mhm. euh, li ci li ci njëkk mooy lu ñuy wax euh, concurrence déloyale maanaam ñun dañu jël suñu dëkk ubbi ko ku neex dugg yëpp ku ñooy jaay dugg or que mhm. ñi ngi duggul ñu dugal suñu biir dëkk ñoom seen seeni dëkk dañ ko tëj fa dugg naa la expliquer yenn dëkk yi ñu gën a jege yu mel ni ay Maroc ak Tunisie. Mhm. alors donc yow bi nga xam ni dangay ngay liggéey. Euh, di fay impôt di fay courant di fay euh, ndox. di fay euh, maintenance di fay ay emploi mhm. à chaque fois loo liggéey da koy def ci ay charges. Mhm. jox la benn firnde boo xam ne dafa gaaw boo jëlee lu mel ni électricité. Euh, industrie pharmaceutique sénégalaise ak industrie pharmaceutique yëpp doom dañuy soxla courant. Mhm. ndax loi moo leen ñu utiliser courant lu tax parce que foofu boo fa demee garab yi war ñu dépasser vingt cinq degrés. Mhm, donc vingt en permanence da ngay dawal groupe froid. Mhm. loolu day lekk courant. le courant bi ñu ngi koy jëndee cent dix sept francs le kilowattheure boo demee Côte d'Ivoire moom foofu mu ngi jar soixante sept francs boo demee Éthiopie mi ngi jar quinze francs. gis nga différence de prix bi mooy dem ko donc pour nga am compétitivité dafay metti mm. après boo jëlee fiscalité bi nga xam ni lu ñu tuddee TVA parce que boobu moo gën a injuste en réalité mm. xam nga TVA la ñu tuddee impôt indolore maanaam TVA mooy loo xam ni ki koy fay mooy ki mujjee consomateur bi mais du ko yëg parce que ko dugal ci prix bi mais li doy waar ci boo ci médicament médicament dañu génne TVA bi pour njëg li wàññeeku mm-hmm. mais ñu koy defar ñooñu TVA dañ koy fay donc ñoom TVA bi ñuy fay waruñu ko woon fay mais ñun ñoo koy supporté mm. donc loolu dafay peser ci sa ci sa mm-hmm. compétitivité mm-hmm. Mm-hmm. boole ci ak yeneen problème yoo xam ne li ñu tuddee commande publique commande publique mooy garab yi nga xam ni mooy jógee pharmacie nationale d'approvisionnement def seen ne euh, appel d'offre dëkk boo dem ça c'était commande publique waaw parce que Sénégal dafa ñaari marché dafa marché privé ak marché public mm. dafa marché privé bi 80 pour cent la du chiffre d'affaires milliards et marché public bi 20 pour cent donc euh, bu dee commande publique bi li euh, ñu gis ni indien yi ak euh, ñi ci ba bitim réew ñoom ñoo hmm. ëpp ci li ñuy jël ci ci ci bien vrai que amoon na ay jéego yu defoon ba nga xam ne dimbali donc industrie locale bu ñu mun ci génn hmm. donc bref pour ne pas être long donc bëri na ay problèmes yoo xam ne daf lay njat hmm. ba yow doo am compétitivité moo tax bi ñu nee léegi dañuy def dañuy am souveraineté pharmaceutique ASIP ñu ñoo toogoon ñu ne ñun dañuy jël engagement pour andi vingt pour cent mm-hmm. Mm-hmm. de souveraineté pharmaceutique mm-hmm. en deux mille vingt cinq vingt cinq pour cent en deux mille trente et pour cent en deux mais dañu ne pour ñu def loolu il faut gouvernement bi jël ay mesures yoo xam ne mooy tax que industrie yi fi nekk ñu am compétitivité ci mesures yooyu nañ ci ñëwaat moom mooy du bon corrélation euh, moom la ñu wax également bu dee marché public bi ñu ne euh, léegi nañu may euh, PNA di defal contractualisation directe ak industrie yi fa nekk maanaam garab ñun bu ñuy def rek duñ koy jege ni bitim réew mais nañ ko nañ ko def jox waa waa waa waa PNA directement. Mm-hmm. donc euh, également euh, képp koo xam ne ñëw nga gagné Sénégal benn ligne war nga jënd war nga andi fay garab bu ëppee 500 millions ñu ne kooku yow duñ la bàyyi nga defar 500 millions yëpp parce que doo ñu jox produit fini da ngay ñëw nga am loo. defal sous-traitance ak benn acteur local bi nga xam ne moom aussi si 500 millions di ci am. Mhm. comme ça mhm. koppar bi du génn. Mhm. Ah ndax boo xoolee ci médicament Sénégal euh, boo jëlee 200 milliards mooy euh, pratiquement marché bi et puis chaque année day yokk de 12 pour cent boo jëlee 200 milliards yi. donc 97 euh, pour cent yi dafay dellu bitim réew. loolu dafa bari. loolu lu muy nekk mooy. ñun bu ñuy consommer garab dañuy dëgëral ay emploi bitim réew. yow garab boo jënd bu jógee bitim réew yaa ngi néewal loole emploi Sénégal di dëgëral emploi et pourtant et pourtant euh, le contraire a été euh, euh, euh dit en tout cas en 2021 bi nga xamante ne état bu Sénégal bëggoon a def relance économique euh, jaarale ko ci li nga xam ne moom moo di industrie pharmaceutique bokkoon na ci en tout cas six priorités de l'état kon ñun yaakaar nañ ne en 2023 situation mu waroon na waroon nañ ci surpasser d'autant plus que ci Covid bi diggante 2019 jàpp 2020 xam nañ lu bëri ne que souveraineté pharmaceutique faa mu am pour que ñu mën a garder tey jii euh, sunu sunu autonomie ndax tey bi nga xamante ne nii euh, euh, dëkk bi àdduna bi yëngatu na ku ci nekk teg ay frontières am même masque c'était difficile pour que Sénégal defaral ko boppam il a fallu ay artisans wala ay ay ñoo fi doon toog di defar ay gel ay masque pour que nit yi mën a mën a mën a sukkandiku je pense que diggante 2019 ak léegi lu bëri waroon na changer waroon ñu woon toog ba di wax ne que lii ak lii ak lii ak lii moo wax le problème dama bëgg ñu toucher le le le problème au fond lan la c'est quoi. alors vous avez dit comme je depuis mhm. ñu ñëw ba ñu def ay assises genre assises la ñu génn. Mhm. parce que ñun ay chefs d'entreprise lañu. ñun mhm. euh, ay chefs d'entreprise donc ñun ñu ay nekkuñu ay njaxtoo mais ñun euh, industrie pharmacie dafay loo xam ne lu pointu la euh, de ce fait. lépp loo ciy wax rek danga ko war a xam ba nga xam ni également booy joxe solution da ngay xam solution da ko koy moo tax bi ñu liggéey ñu ne leen parce que il est important que ñu ne état bi euh, lii mooy solution donc ñun bind nañ solution bi jox nañ état bi donc depuis 2019 mmh. euh, 2021 mmh. ñu bind les so les les solution bi ci njëkk mmh. te bu ñu defee conférence loolu la wax euh, jafe-jafe yi dafa bari ba nga xam ne bu dee am na ñaari solution yoo xam ne dañu ne état bi foog mu am daar daar et d'ici le mois de juin 2023 bi ci njëkk moom la ñu tuddee euh, corrélation c'est-à-dire la pour ñuy comprendre day mel ni boo jëlee euh, xam nga soble bi boo xoolee dañuy bàyyi soble bi ci biir bi doogaat donc li ñuy laaj loolu la xaw mel mhm. te loolu biñ koy wax maanaam dañ ko teg fu wóor lu tax ñu teg ko fu wóor maanaam dañu dem lu ñuy tuddee benchmarking dañu xool dëkk yi nga xam ni ñun fi ñu toll nii ñoom foo lañu tolloon ak ñu ko defee ñoom fi mu leen yóbbu ci souveraineté pharmaceutique mhm. ñu jël dëkk ñu gën a jege mooy Maroc mhm. Tunisie Algérie Arabie Saoudite Jordanie mais ñu jël ci dëkku africain Maroc fi ñu toll ni mu ko defee mu jël décision def corrélation mu mhm. ngi doon importe plus de quatre-vingt-dix-huit pour cent de médicaments mhm. bi ko Maroc defee aujourd'hui Maroc am na soixante pour cent de souveraineté pharmaceutique ndax loolu lu muy tekki maanaam da nga naan dama jël benn exemple paracétamol bi dañ koy defaree Sénégal léegi képp koo xam ne dafa bëgg a dugal paracétamol bii Sénégal dootu ko may duñ la ko duñ la génne dëkk bi de. faaw production paracétamol bu Sénégal jeex. noonu non dañ naan la. léegi yow dañ naa la yow léegi boo bëggee jaay sa paracétamol da ngay mm-hmm. da ngay defar usine biir Sénégal. investir biir Sénégal. créer fi ay emploi créer fi emploi. wa ilaa su dee mënoo créer usine léegi nga def contractualisation ak beneen industrie bu fi nekk. Mm-hmm. comme ça moom. boo liggéeyee ñëw andil ko usine bi. déedéet moom yow da ngay créer sa usine. boo mënul créer usine bi ñu ne léegi. yow da nga koy da ngay ñëw jox ko ni yow yaa may defaral léegi par exemple bi may jaay Sénégal. sous-traitance sous-traitance lay defaral. su boobaa ngeen séddoo. maanaam koom bi. waaw cest bi yow te la bitim réew. da nga koy fay mu jaay. bi ñu jaar Sénégal. waaw xam nga kon dàquñu la. donc loolu mooy comme par exemple Pfizer mën na def sous-traitance ak Teranga Pharma. ak Teranga Pharma voilà te loolu eh, bu ñu ko xoolee Maroc jugee léegi mi ngi ci 60 pour cent. Hmm. Tunisie ñu ngi nekk douze million de habitants 13 millions ñoom ñu ngi ko commencé 91 Tunisie fi ñu toll nii am nañ 70 pour cent de souveraineté hmm. pharmaceutique. Hmm. ba pare seen usines yi ay 5 la woon léegi am nañ plus de 32 usines parce que Algérie ñoom def nañ ko ñu ngi jugee ci cinq pour cent. léegi ñu ngi ci. 75 pour cent. lan moo tax ñun Sénégal mënuñu ko def est-ce que du problème de coopération la parce que Sénégal quand même dañuy jaawale peut-être ay coopération économique tripartite wala bi euh, ak ay coopération yoo xam ne c'est purement industrie pharmaceutique est-ce que du loolu. alors xam nga ñun xam na li ñuy wax. Mhm. moo tax ñu ñu génn wax ni solution bi lii la mais yemuñu foofu dañu bind kii parce que li li li li tax ñu mun ko def xam nga lu la état war a def. Mhm. bind décret présidentiel wala arrêté ministériel. loolu rek moo ko mën kese loolu ñaar lay jar décret présidentiel wala arrêté. zéro franc. conscience. zéro franc conscience su ñuy bindalee. Hmm. arrêté bi bi ñu bëgg wala décret bi ñun ñoo engagé wu. Hmm. pour que souveraineté pharmaceutique Sénégal ci calcul ñuy def xay ba ñu def. Hmm. fii ak dina ñu am. près entre vingt sept ba trente pour cent. ndax dañu calculer marché Sénégal ci juróomi at yi weesu. ñu xool pour chaque famille de médicaments lan moo ci nekk. ñu xool ku ci nekk muy Médis muy Teranga Pharma muy West Africa Pharma muy Val d'Afrique ku nekk ak Parenterus yow lan mooy sa capacité de production maanaam yow lan nga mën ñu ne la marché bi je donne un exemple bu gën a yomb. mooy paracétamol parce que moom la ñu gën Sénégal c'est un bu ñu ko xoolee am na ñaar ñu koy defar Sénégal ñett ñu koy defar sax Sénégal boo jëlee garab yi fuur par semol mm-hmm. marché bi 4 milliards la de francs CFA ci 4 milliards yooyu ñaari multinationales ñooy capté 78 pour cent. 78 pour cent pour cent maanaam téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett. juróom-ñett te boo wëlbatee ñoom seen i charge ñoom bu ñu ñëwee Sénégal dañuy jël 78 pour cent mais xam nga lu ñu fi bàyyi comme développement. benn équipe commerciale la ñuy fay li ci des yëpp day dellu ginnaaw day dellu donc ñu nag ñu ne léegi dañuy wax ne ñooñu di ut ci xaalis Sénégal mm-hmm. nañu liggéey comme ñun mm-hmm. maanaam ñun charge yi ñuy supporté ñoom nañ ko supporté mm-hmm. te loolu suñ ko defee xam nga ban njëriñ la am damay jox gis nga bu joo jëlee paracétamol par exemple man su may jaay un million aujourd'hui man ne Teranga Pharma maa ngi ci un million de boîtes suñu defee corrélation bi mun naa jaay dix millions de boîtes mooy jaay 10 millions de boîtes xam nga kan mooy defar boîte bi xam nga du moom maa koy defar beneen industrie sénégalaise moo koy defar. Mhm. donc damay yokkal koom kiy defar boîte yi. Mhm. carton yi carton yi parce que garab bi dañ ko dugal ci carton. Mhm. imprimerie bi am notice. ñoom ñoo koy def moom aussi. day yokkaat dix millions donc day def économie de ah, chaîne de valeur bi day yokku chaîne de valeur auto transport bi transport restauration froid wala ah, le froid ah oui maintenance industrielle donc industrie pharmaceutique c'est toute une chaîne en yu écosystème mm-hmm. liggéey yu bari moo ko ëmb mm-hmm. donc dafay évoluer de façon exponentielle mais li ëpp solo mooy mm-hmm. dafay garantir santé publique parce que en réalité dañuy liggéey pour les parce que li li nga xam ni moo am loolu fi amee maanaam ci diir bu gàtt dinañ mën a wàññi garab yi. parce que booy liggéey ba ngay li par booy produire un million ngay produire dix millions da ngay wàññi say coût booy wàññi say coût léegi da koy impacté ci ci prix médicament bi. donc fi ñu toll nii amul jafe-jafe boo xam ne ñun comprendre nañ parce que gis nañu amul lenn loo xam ne pour ne ko téye moo tax asib dañuy dem lu sore xam lu ñu def. dañuy dem ba ne gouvernement bi comme depuis deux mille vingt et gis nañ ni. Hmm. am nay jéego bi gouvernement bi def mais jéego bi mu def par rapport souveraineté bi mu dégg ngeen projet Madiba. Hmm. dugg na ci xaalis ak ARP ñu ngi def liggéey bu baax. Hmm. mais seulement du ñooñu ñooy def souveraineté pharmaceutique bi souveraineté pharmaceutique ñun ñoo koy def ñi nga xam ñoo fi nekk. actuellement. parce que ñi war a ñëw bu dee dañuy xalaat ni kenn moo ñëw def ko bala mu koy def dina jël lu mat juróomi at bu juróom-ñaari pour mu génnee benn boîte moom. Mm-hmm. waaw déjà euh, il faut il faut juste déjà ñu ñu ñu jaajëfal leen ñoom ñi nga xamee ne ñu ngi nekk ci ci ci milieu bii. Mm-hmm. Euh, tout à l'heure dafa utiliser benn terme boo xamee ne que c'est c'est ce qui définit exactement ñoom seen seen seen muy muy le terme pointu mu ne maanaam liggéey la boo xamee ne que c'est c'est il faut et véritablement dans le milieu pour parce que dafa dafa dafa dafay laaj yenn si ay exigences. mais man su ma ñëwee déjà si euh, wàllum importation bi c'est-à-dire ñu Sénégal yàlla daf ñoo natoo benn situation professeur moom mooy alors je sais pas euh, c'est-à-dire complexe d'infériorité la wala c'est une manière donc de dire qu'on ne fait pas confiance à nos propres experts wala book ñi nga xamee ne am nañ xam-xam ci ay euh, dans un domaine euh, bien bien bien nommé wala c'est quoi parce que tey jii ni ñu Sénégal yàgg nañ di dégg ay ay scandale jëmale ci wàllum importation ay ay ay ay garab ak yu demee noonu. Mm-hmm. ay nit ñu nga xamee nag de manière frauduleuse dañuy dugal garab ci biir Sénégal alors et man sérieusement quand j'entendais parler yàgguma sax xam ne que. Euh, wala boog est-ce que du bërki démb laa koy xam bi koy Aïcha di dugal ci groupe bi xamu démb je sais pas mm-hmm. industrie pharmaceutique je xamuma woon ne que am na ay nit ñu nga xamee ne que ils étaient là <laughs> que ñu engagé wu ci loolu noonu mm-hmm. comprendre nga parce que xam naa aussi que ne maanaam c' est maanaam domaine la boo xamee ne que alors euh, économiquement c' est c' très coûteux alors mais dama bëggoon juste ñu ñëw ci euh, maanaam euh, parce que déjà beneen observation bu may def moom mooy alors. am na benn observation bu mu def rek moom mooy. Mhm. ñun aussi xam nañ ne. maanaam am na am na am na ci wàllum importation yi maanaam mafia boo xamee ne que certainement dafa taxaw. di leen mm-hmm. di leen di am empêcher ñoom seen yéene bi ñu am pour def mooy li ñuy wax souveraineté pharmaceutique. parce que donc tey jii nii dafa am yeneen ci ay nit ñu nga xamee ne que ils sont mm-hmm. derrière. Mm-hmm. alors di waajal seen bopp à fois donc lu aju ci wàllum ay campagne yu dem ci wàllum ay vaccination jëm ci wàllu ay ay ay ay euh, euh, prévention jàppal bàyyil na ay nit ñu nekk derrière ñoo xamee ne que ils sont ñi nga xam ne ñoom liggéey ci wàllu woowu euh, ñooñu noonu du leen mës a arrangé ñii li ñu bëgg def ñu def ko. ça ne les arrangera absolument pas. Pathé da nga touché da nga touché en fait le le le nœud du problème nga nga nga touché. du leen arrangé la question peut-être la question la plus simple nag docteur moom mooy est-ce que les lobbies pharmaceutiques yi yi yi yi mag ñi seeni souveraineté. seen souveraineté pharmaceutique arrangé na leen. du leen arrangé. waaw ah, non du leen bien entendu xam nga wax naa la. Euh, paracétamol rek laa jël. damay mhm. la soixante dix huit pour cent yi ñu deux multinationales ñoo ko capté maanaam ñoom. deux rek mmh. donc mais loolu aussi dafa. ñoo xam ne amuñu amuñu ay euh, euh, usine fii ci Sénégal amuñu usine. non non ñoom xaalis bi ñu dugal Sénégal. maanaam dañuy fay lu mat fukki nit. mu defal leen mooy visiteurs médicaux yi. du seen employé direct dañu dem def ko dañ ko suutre rek beneen. beneen ba nga xam ne du ñu sax ñoo fay ay voilà. dem si mais bu bu bu jég bu bu bu ñu weesoo ci délégué médical amatul benn charge bu ñuy def Sénégal loolu dafa yomb. non c'est extraordinaire. Euh, te ñooñu ñoom seen dëkk la ñuy dëgëral. Mhm. Maroc aujourd'hui wala Tunisie ñoom soo duggee ci pharmacie Sénégal da ngay fekk ay garab Maroc garab Tunisie. waaw bëri na mais Sénégal ñun mënuñu dugal garab biir Maroc. mu ngi dugal garab biir Tunisie parce que ñoom dañu ne mhm. xool li ma wax boo bëggee jaay garab biir Tunisie wala biir Maroc da ngay ñëw nga liggéey benn tunisien wala nga créer fa entreprise foofu te boo ko créer majorité bi waa dëkk bi koy moom loolu dëkk bi la ñuy def ah donc ñu nag loolu il faut mu am maintenant donc ces multinationales là effectivement c'est des parts de marché yoo xam ne mhm. ils sont pas prêts à lâcher mais Euh, leen dafa am ne dañ koy war a bañ a fàtte mooy que ni bu amee euh, ñaanu yàlla mu ñëwaat mais euh, gouverner c'est pré anticiper prévoir mm-hmm. dina ñëwaat mais da ngay prévoir ba nga xam ne yow bis boo amatee problème yow di nga am di nga mënal sa bopp et puis di nga am sécurité mm-hmm. sanitaire mm-hmm. mais du toog chaque fois di di di di di. jégaani mais la preuve moom mooy docteur euh, doguma la euh, barki Demba Ndiaye bi Covid bi ñëwee ñëpp naan azithromycine azithromycine azithromycine euh, ñu naan dafa nekk sax en rupture artemisia am na Sénégal azithromycine Médis mënoon na ko defar mais malheureusement ñoom waxoon nañ ne que jamono jooju dañu amoon problème. Ah, moom laa lay xam nga xam nga boo seetloo depuis indépendance. Mhm. ba léegi lu tax amu fi ay industrie yu mag pharmaceutique parce que comme je dis charge yi ñuy soutenir yi ñuy yi ñuy dund mm-hmm. moo diis dafa diis te yow sa marché demewul noonu dafa non marché bi baax na de mm-hmm. mais ñi koy xëccoog yow mm-hmm. ñoo ci boppam tolluwu leen doole ñooñu la valoriser bàyyi leen voilà donc il faut ñu wàññi charge yi ba pare ñu réguler marché bi ba nga xam ni képp ku bëgg a dugg ci biir marché bi da crée développement biir Sénégal sa à loolu vraiment moom moo am solo mais benn affaire léegi la ko wax Pathé mooy les sénégalais également lu ñu tuddee consommer ñun yóoluñu suñu bopp c' est un grand problème. les sénégalais aussi c' est un problème. ñoom ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jéggi rek lañ te dafa li ma bëgg a wax mu leer mooy xam nga garab bokkul ak portable wala. caas yow booy jënd sa portable Aïcha am nga say critère buy définir qualité portable bi nga bëgg mais boo jënd garab mënoo définir qualité bi. Mmh. y a que le médecin qui te prescrit nga dem jëndi. médecin bi koy bind sax laa wax. Mmh. mun la wax ni garab bi moo gën bi mun ko. est-ce que moo tax garab nekk lu doy waar lu spécial. c'est garab pour nga xam ni bii moo baax bii baaxul foog nga dem laboratoire ñu testé ko tant que testé wuñ ko laboratoire amul kenn doom doomu bu ne la bii moo gën bi mënut a nekk te buñ koy testé dafa am ñeenti yoo xam ne daf ci war a nekk. lu ñu tuddee qualité ci biir qualité bi ñeent la. Mhm. maanaam duñ ne paracétamol dañu koy dem labo ñu xam ni paracétamol moo ci nekk. Mhm. ñu ne 500 milligrammes ñu dosé ko ñu ne ok gis nañ ci 500 moo ci nekk du 503 du 504 mais 500 ci nekk. Mhm. ensuite dafa am lu ñu tuddee excipient excipient mooy liy dimbali paracétamol pour mu faj la. loolu mi ngi ci ba pare ñu ne leneen loo xam ne waru ci woo nekk nekku ci donc ñeent yi fu ñu vérifié moo tax loolu mooy qualité garab bokkul ak yow da ngay xool ni ah rafet na wala rafetul loolu loolu bokku ci. maanaam aussi efficacité mu faj la ak mu bañ andi yeneen problème muy sécurité médicament bi mais loolu ñun ñi fi nekk ñun dañ ko garantir te pour sénégalais yi qualité bi nga xam ne moo soxla pour kii mi ngi si yu ñu defar ñoom te en plus dafa tuddee li ñuy tuddee ARP maanaam moom mooy euh, autorité de régulation pharmaceutique ñoom dañ ñi inspecté ba pare ñun garab yi ñuy def aussi dañ koy yóo dañ leen koy yóore ñu koy saytu il faut que sénégalais comprendre ni mhm. bu ñu bëggee également industrie pharmaceutique Sénégal dox il faut ñuy taamu mhm. garab yi ñu jógee ñu jóge fii bàyyi jóge fële mais mais mais docteur mais, mais est-ce que ci sénégalais la tamit pharmacien yi nga xam ne ñoom ñoo yor ay officine di jaay mhm. ñoom ñoo war a xool par exemple yàlla ñuy recueillir ci seen i officine aussi waaw mais mais Aïcha mais est-ce que est-ce que tamit euh, information bi nga xam ne très bien yi war nañ koo am. ci xam ne. Mhm. ci xam ne senegal am na ñoo xamante ni xarañ nañ lool ci defal garab. Mhm. am na matière première bi ñuy defaree garab am na fi mhm. am na ñu ko man lool ndax ñaare réew ma nga dëkk réew ma nga dëkk di lekk-lekk ak réew ma soo feebaree ci réew ma garab ya nekk ci réew ma ñoo gën a gaaw ci faj la information bi nga xamante ni sénégale yi waroon nañ koo am ci xam loolu xam ne am na ñu mën a defar garab ci réew na fu koy defaree am na laboratoire yu koy saytu am na matière première bi lépp am na fi est que information boobu aussi Sénégalais yi am nañ ko pour xam ne suñ feebaree tey dem jënd garabu Sénégal garab boo xam ne Sénégal lañ ko defaree moo leen di gënal jënd boo xamante ni bitim réew la jógee. bien sûr suñu responsabilité la. Euh, ñun aussi am nañ ci mooy les pharmaciens. Mm. Euh, point de presse bi ñu defoon ak yow bokkoon na ci parce que effectivement ñu bëri ñu wax ni ñun xamuñu woon ni Sénégal existé ngeen. et puis man xamu woon sax lu toll de six entités. ñu ngi bokk ci ci kii bi. kuréel bi man Teranga Pharma xamoon naa ko à yow. Euh, mais yeneen industrie yi xaw euh, am na Médis. Mhm. am na Parenterus Parenterus mooy solité yi. yi fii Bayaax. am na ah. West Africa Pharma. ak Institut Pasteur bi ngeen bi ngeen dégg. ak Val d'Afrique. communication bi euh, bariwul. Mhm. mais du moo du moo ne du suñu responsabilité mais xam nga aussi ñun dañ suñu réglementation daf ñuy tere publier garab. d'accord c'est-à-dire aujourd'hui man mënu wax sama turu garab fii ci plateau bi parce que moo ko defee damay euh, jéggi yoon. mun naa wax ci société bi. Mhm. donc parce que naan garab bokk kenn war ko publicité. Mhm. publicité mi ngi yem ci euh, ñi nga xam ñoo ko war a bind. ak ci biir pharm ci biir pharmacie. donc acteurs yi nga xamee ni mooy. médecins yi bind garab yi pharmaciens yi nga xam ñoom ñooy euh, conseiller mhm. ak population yi ñoom ñëpp ku ci nekk euh, war nga am beneen attitude également de consommation moo ñu mhm. ñun ñu ko tuddee consommation responsable parce que boo demee ci yeneen dëkk yi gis nga boo demee France léegi seen i garab bu ñu ci bindee fabriqué en France pour que français bi di tànn mhm. boîte France boo jëmee dañ ci bind fabriqué en France euh, pour que français bi léegi moom buy jël bu jël garab. tey mhm. bind day xool ba xam def na ci fabriqué en France. Ah, chinois bi même chose. même chose donc ñun il faut am. sénégalais ñoom seen ci def loolu. Sénégal bi duñ def fabriqué. man mais ci def ci dàll yeeg yu bari yooyu. donc mais mais donc euh, effectivement responsabilité chaîne la. Mhm. Hmm. Euh, mais aujourd'hui li gën a xa li nga xam moo gën a jàpp parce que loolu dafa am solo. mooy que industrie nekk dañu loof ñu sol cest su dee defuñu lu gaaw surtout ñaari mesures yu ñuy wax ak euh, président bi euh, surtout dafa am lu xew ci président loo xam ne dafa am benn décret parce que bu ko wax mu leer euh, président dafa signé woon benn décret deux mille vingt et deux mille vingt et un décret bi pour que ñiy defar garab mën a soxaliku mm-hmm. mais léegi garab boo xam ne dañ koy defaree biir Sénégal ba mu jeex maanaam depuis ci matière première ba produit fini bi loolu kenn dootu ko def appel d'offre international mais depuis décembre 2022 bi dañu jël beneen décret ñu abrogé décret bële mm-hmm. donc moo tax ñu ne ñu il faut mu am beneen décret wala beneen arrêté bu bees boo xam ne loolu ñu bindoon ci décret bu njëkk ba dañ ko ci defal mais mais mais loolu yëpp à quelle fin c'est-à-dire à à, la quelle fin. pour mais ça profite une c'est-à-dire le pourquoi man ba léegi nii je pas mën dama comprendre waa professeur euh, dama comprendre à quelle fin le pourquoi est-ce que circonstance bii nii di am cest on vu dañuy def benn privilège ci seen ci seen ci seen liggéey à benn moment ñu daal di retirer loolu noonu quoi cest à te du am suivi et on ne comprend pas le pourquoi est-ce que est-ce que aussi yéen à votre niveau jéem ngeen au moins xam nga donc est-ce que ngeen rapproché wu à votre ministère de tutelle pour un peu xam en fait lu lu waral loolu lan moo tax euh, circonstance bi di demee nii et revendication yi ngeen jot a teg ci table yi mooy ñaari mesures yooyu noonu alors est-ce que am ngeen retour donc portant ci ci ci euh, ñoom seen ay réponses quoi est-ce que c'est quelque chose de faisable et ça prendra combien de temps ou bien ils vous ont carrément dit ñett lii mënul nekk wala c'est quoi. Euh, alors euh, merci bi ñu bi ñu defee conférence effectivement je pense moo fi jógee d'ailleurs il y a le conseil du président de la République pour ñu dajeek moom tey à 10 heures. Mm-hmm. la la ñu war a dajeek moom à Dakar pour euh, mën ko informer encore sur ce qui s'est passé fii déjà ci état actuel industrie fi ñu toll ak fi ñu war a jëm parce que bu ñu bëggee souveraineté ñun bu ñu jàppalewul souveraineté du am. Mm-hmm. loolu wax foofu mu leer. voilà c'est-à-dire que bu Sénégal bëggee souveraineté. 2025 waaw léegi léegi la ju dafa dafa jàpp. Mm. Euh, donc euh, mais nag ñun fi ñu toll nii dañu ne solution yaa ngi nii. te solution bi def na ay preuve am ay dëkk yoo xam ne sorewul. Mhm. te ñun chiffres yi ñu joxe yëpp mun nañ ko vérifier. Mhm. Euh, moo tax ñu ne leen léegi euh, amatul lenn lu ñuy xolaat amatul réflexion. Mhm. jëf rek moo des. te jëf bi mooy signé ça coûte zéro franc te loolu bu ñu ko signé. wax la intérêt bi mu am. xam wax naa la dafay yokk ay koom. par exemple bu bu ñu signé mois de juin li ma lay wax ne décret corrélation bu ñu ko signé. le lendemain deux cent employés dañ koy créé deux cent ci saa si. engagé ngeen de. waaw non parce que dañu ñu dañu xam li ñuy wax. <laughs> dañu natt emplois ñu war a créé. Mhm. natt investissement ñu war a def. ñu ne pour fii ak deux mille trente bi ñu xoolee fi ñu toll ak marché bi ñu bëgg jël jël dinañu investir dix à vingt milliards te investissement yi dañ koy commencé dès deux mille vingt trois. médecine ku nekk liggéey ku nekk da ko def donc ñun lépp lu ñuy wax bind nañ ko ba pare. dem nañ ba lu gën a sori maanaam dañu def projet de décret maanaam xam nga ñun du suñu liggéey. ñuy bind ay décret. facilité ngeen ko. mais daal dañu dañu dañu dem si ñun jël bind projet de décret ñëw jébbal leen ko ne leen. léegi xam ne ñoom dañuy lire rek approuver jox nañ ko ñun jël nañ ko jox nañ ko ministère de la santé mm-hmm. Mm-hmm. def nañ benn atelier ak delivery unit bu professeur Yérim Diop ci mm-hmm. jiite moom mooy jiite donc le plan de relance ñu def benn atelier ñu xool degré bi ñu defar ko léegi mi ngi ci ñoom maintenant nag dañu bëgg nag décret boobu nag dañ ko signé balaa euh, président effectivement moom wax na ci conseil des ministres plusieurs fois souveraineté pharmaceutique mais li euh, nga 5 avril bi passé nee na moom def nañ ci xaalis boo xam ne jéggi na dayoo mais ba léegi gisaguñu. moo ñu président ah ñun ñi nga xam ñun ñoo xam bu ñu bëggee am souveraineté li ñu war def ñu ko ah attention dugal nañ xaalis mais ñun xaalis boobu gisuñu ko. maintenant euh, bu ñu buggee en tout cas objectif yi am ñun ñoo ko mun def du keneen. te daar daar la nag muy que ñaari mesures yi am. te euh, li nga xam ne également moo am solo mooy surtout également mooy lu ñu tuddee xam nga rupture médicament baaxul. Mhm. Euh, ma jox la benn garab boo xam ne euh, yenn feebar yoo xam ne Sénégal nit ñi dañu doole melul noonu am na ñoo xam ne ñoo feebar chronique yoo xam ne garab yi du cher xam nga ñi am épilepsie. Mhm. am na garab bu ñuy naan bokk naa da ngay crise mhm. garabu tool yi ba saa amatul. xam nga lu tax. mbir moo ko def fii la ko defaree. mais parce que am na décision jël fan yii tamit maa ngi doon dégg ñu naan kii dafa manqué insuline. Euh, am ñu interrogé ay ñu dem nañ ci pharmacie yu moo tax rupture moo la ñuy wax rupture de médicament c'est-à-dire que yow boo dooleelee sa waa kër ñoom dañuy fexe bu rupture du am mm-hmm. donc suñu bëggee rupture yi wàññeeku garab yi wàññeeku mu am stock de sécurité am xëy ba pare garantir surtout ñi nga xam ni feebar yi nga xam ne ñoom ay feebar chronique la te médicament yi du cher il faut ñu dooleel kër yi parce que loolu également loolu la ñeneen ñi def ba yegg fi ñu yegg te à chaque fois dañuy gën a avancer gis nga li gën a doy waar euh, mooy que boo jëlee euh, muy Afrique francophone ah, boo mm. jëlee garab marché médicament euh, du ma tooñ waa France mais dafa am loo xam ne kenn xel xalaa xel nanguwu ko ñoom dañu capter le marché pharmaceutique des pays francophones. et donc il faut qu'aujourd'hui que bu ñu bëggee moom suñu bopp ñu mun a xeex système yooyu mhm. xam nga boo jëlee loo xam ne dañ naan la jox la exemple ngay mhm. defar garab Sénégal mhm. fii mu dem France ñëwaat biir Sénégal loolu lu muy tekki loolu xel nangu garab bi Sénégal lañ ko war a naanee fi lañ ko defaree ñu ne garab gi ba lañ ko naanee fii dañ koy yóbbu sa fële France mu ñëwaat fii alors docteur euh, beneen a ngi nii aussi euh, je pense que euh, peut-être lutter pour que am souveraineté baax na mhm. mais également beneen xeexaa ngi nii war ngeen ko mën a xeex mhm. bokk na ci pratique illicite de de de médicaments yi nga xam ne ah. mu ngi yàq vraiment la la commercialisation du du du kii du médicament. bien bi sûr xam nga médicament faux médicament médicament yooyu yëpp li koy andi. médicament la rek. y a le prix. pratique bi illicite mhm. xam nga li gën a doy waar li ñuy wax nii parce que lépp looy def da ngay def comparaison. Mhm. boo demee Maroc c'est-à-dire Maghreb foofu amul garab mbedd amul fa. c'est c'est quoi l'explication ça va l'explication mooy am nañ seen souveraineté pharmaceutique. garab yi nit ñuy soxla. ñu ngi koy defar ba pare njëg li. njëg li ñëpp mën cee jot ñëpp mën cee jot. donc yow bu dee ñëpp mën a jot amoo doo dem. di koo xam ne dara am leerul. coow yëpp loolu kese donc aujourd'hui buñ la buñ la waxee nii boo ñëwee nga dem ci mbedd mi par exemple bu office yi euh, garab yi accessible nga génn ci mbedd mi yow ñu la koy jaay plaquette bi par exemple benn 3000 nga génn kuy jaay ci mbedd bi benn 1000 francs waaw 500 mais doo ko jënd da nga koy jënd. c'était xam nga te ba pare xam nga qualité boobu dara wóor la ci. mais wóor na ne yow boo duggee biir pharmacie. wala kër docteur garab goo fa jënd baax na. Mhm. mais garab guñ ko ki la koy ki koy defar moom garanti na ko. Mhm. état bi am na ko fi tudd ARP moom aussi garanti na ko. Mhm. donc li rek mooy jàppale ba nga xam ne léegi ñu wàññi ko. ñu wàññi ko antibiotique. c'est un marché de vingt milliards. de francs CFA. vingt milliards day dem mais vingt milliards bu ñu ko defaree fii. di ko defaat ñetti at mais da ngay gis day wàññeeku. mais antibiotique nag vraiment hmm. docteur foofu dañu fay taxaw. waaw sénégalais ni ñuy def antibiotique. xam nga seen baa ngi rey sénégalais. ñoom di dëgg boo. xam ne loolu jël antibiotique naan. Hmm. waaw loolu lañ koy wax te lu tax mu grave sax ci antibiotique yi. c'est très grave euh, mooy suñu tuddee antibiorésistance. Hmm. xam nga Sénégal da ngay gis euh, ñoo xam ne dangay ñëw sa bopp day metti. mu ne bon euh, damay jël garab mais foog moo soxla foog mu naan antibiotique antibiotique bala nga koo naan soit pharmacien moo la koy digal wala médecin bind la mais yow waroo toog ni ah pâté de ah man de ma jëlee bii baaxoon na ci man rek ay yow ma dem pharmacie jox ma bi baaxoon mais dañuy bi pâté may sama sama bot boobu di pâté jël garab ñun dañuy ci kër gi ñun ay doom professeur professeur la si bëgg ñëw mais professeur am na si bëgg ah, bëggoon naa intervenir rek ci sama mbokk Sowen bi mm. <laughs> wax na fi bu am solo vraiment mm. xamoon Sowen am na amee xam-xam nii quoi <laughs> léegi euh, man ñaari côté laay waxee man en su may réfléchir. Mhm. damay réfléchir en terme de sécurité. Mhm. parce que en fait boo seetee ba ñu seetee garab finalement comme c'est une question de vie ou de mort mhm. parce que en fait garab bu amulee léeg nga gis nit. Euh, dem hôpital ñu ne garab yi soo ko génnee léegi. Mhm. du baax parce que mu def li wala li wala. mais le le médicament c'est d'abord un poison. waaw d'accord donc euh, finalement kon euh, euh, pas si poison mais. Mhm. ñàkk ko. ñàkk ko nit mën na dee. cest à coté que côté boobu mën la la laay wax mhm. lépp loo xam ne bu amulee rek. ay nit mën nañu mën nañu dee rek. donc lu ñu war a jël au sérieux ba pare aussi nga fexe aussi ba am sa indépendance. parce que fu mu mën lekk naan électricité garab ak sécurité. kenn du ko soo traité kenn du mbir la yoo xam ne. du sax euh, ça ça va euh, euh, au-delà de de de de de l'argent. Mm-hmm. waaw du volet économique et mm-hmm. financier. donc pour man côté boobu man laay wax man lépp lu jëm ci wàllu dund ak dee rek man damay exclure lépp luy intérêt personnel. Mm-hmm. lépp luy intérêt intérêt kii donc deuxième point bi mooy rapidement rek. côté recherche bi nga wax ni parce am na benn paa bu moo su waxal. bu fekkee mi ngi dund war na am ay cent ay cent cent deux ans yooyu. nee na euh, ay 1940 45. Euh, mm-hmm. nee na mariste bi ay kii la woon tool la woon yoo xam ne euh, entreprise de recherche ñoom ñoo ko ñoo ko moomoon. mu garab yi ñu doon defaree en Europe yëpp fi lañ ko doon bayee fi lañ ko bayee defar yëpp ba mu baax ñu yóbbu ko France traité ko Europe. ñu doog Sénégal ñu ko jaay est loolu docteur xalaatu nga nekk loolu aussi côté agriculture bi. Mm-hmm. bis bu ngeen amee souveraineté dina dina dimbali si agriculture bi. merci xam nga Sénégal aussi dafa doy waar. ñun Teranga Pharma dafa bokk suñu plan stratégique lu ñu tuddee phytomédicament euh, lu tax parce que à travers les plantes parce que dañuy def benn étude ñu xool bi ñu defee diagnostic bi effectivement sénégalais yi ñoom ba léegi plus de 60 pour cent dañuy utiliser garabu à base de plante. garab wolof voilà am na sax ñoo xam ne tamit dañuy jaxase ñaar yi. Hmm. Euh, di ko boole bu tubaab beg bu wolof bi mais ñun dañuy jàpp ni garab garab la amul garab wolof ak garabu moderne. garab dafa am mandarga. da ko respecté. Mhm. dosage surtout waaw donc dosage bi. moom la wax qualité bi. ñu lii principe actif lii lii faj mi ngi ci leneen nekku ci donc loolu foog mu wér. Mhm. mais loolu foog ñu saytu ko laboratoire. important muy bu olof beeg bu beneen bi. Mhm. ñu ne aussi amul beneen toxicité maanaam amul lenn loo xam ne boo ko naanee lu yàgg dalay lay. da lay da lay am nga garab dañuy tuddee dose. ci garab ñetti dose moo am ci garab boo définirul ñetti dose yooyu. Mhm. maanaam yaa ngi andil loraan gi ko war a naan. ci laa doon wax naan ko naan naan naan bàmba ne ko. d'habitude mën na nekk sax poison. lu ñu tuddee dose. Mhm. thérapeutique dose thérapeutique mooy dose bi lay faj. ensuite nga am lu ñu tuddee dose létale dose toxique donc dose toxique mooy xam ne dalay jox feebar. Mhm. ba léegi mu faj la mais dalay feebar toxique. ak dose létale mooy dose bi lay rey. Mhm. mais loolu nag yow boo ko xamul. Mhm. mais mun nga lor sa bopp. effectivement. ci ñaari garab yi ci garab yëpp ma man du ma wax ay garabu wala fa kii ma li ma rek mooy est-ce garab gi mandar gi am am na ko. Mhm. donc bi ñu gisee ni sénégalais yi bëri nañ ko ñu ñun dañuy def suñu recherche xool. yan plante la ñu mën a pour mën a utiliser ko mu nekk garab yu mën a jaay ci euh, pharmacie bi ñu njëkk a gis mooy bisaab bisaab bu xonq mooy Sénégal na ci naan bu baax mm-hmm. bon du ma ci wax lu bëri parce que Sénégal tam après ñu dem ñu ne docteur Sow nee day wàcc tension ñu naan rek wax <laughs> <laughs> donc bu ñu xoolee def ay ak euh, universitaire gis ko mm-hmm. benn étude scientifique bu nekk biir Suisse mm-hmm. xam nañ ni bisaab bi dafay wàcc tension artérielle am na sax ñu dem ba def ko ay gélule boo demee Suisse yenn pharmacie dañ koy jaay. Mm-hmm. waaw suñu bisaab bi. suñu bisaab bu xonq. Mm-hmm. waaw walaay ndeysaan. donc léegi ñun ñu ne léegi ñun nan la ñu mën a defee loolu à industrialiser ko. Mm-hmm. mais loolu pour nga def ko il faut nga am lu ñu tuddee suuf. boo ko bayee. boo ko xam nga Sénégal fi moom suuf moom wax da ngay wax. mais dafa am beneen affaire aussi mooy Sénégal ni ñuy bayee maanaam dafa ancien amuñuy technique yu moderne yoo xam ne am production de masse. Mm-hmm. donc ñaari contraintes yooyu la ñu jokkante fi ñu toll nii benn bi c'est la disponibilité de la terre. Mm-hmm. et deux mooy les technique culturelles. techniques culturelles. Mm-hmm. donc boo yow booy defar garab da soxla matière première bu bari donc il faut muy gaaw. muy ñëwaat quoi donc ñu ngi continuer di réfléchir et puis li ñu bloqué aussi mooy dafa am lu ñu tuddee vide juridique maanaam. aujourd'hui Sénégal amul réglementation boo xam ne mooy définir garab yooyu. donc bokk na ci euh, réforme yu war a am ñu defar plan yi euh, ñuy defal euh, kii bi comment on appelle réglementation concernant les futurs médicaments. Mhm. mais dafa bokk suñu bokk suñu kii. dama dama gis toujours aussi. Mhm. yéen ñi nga xamante ni yéenay nekk ci côté pajum tubaab yi ak ñi nekk ci côté pajum wala toujours dafay am. ay confrontation ci seen <laughs> diggante. ñii dañ naan ñii li ñuy def wóor baaxul. ñii naan ñii li ñuy def baaxul parce que boo xoolee garabu olof dafa yàgg euh, ci réew mi suñuy maam. da mhm. gis par exemple soo tooyee ñu ne la jëlal xasum looro. Mhm. ak xasum wén ak xobi lëng ak xobi xewar nga boole ko baxal ko soo ko baxalee ñu comme par exemple problème dosage bi ñuy wax. Mhm. dañ naan la euh, kaas wala digg kaas wala nanga soo añee boo lekkee boo lekkee ba rek. nga naan ñoom kaas rek. te te yooyu ñu gis ne. <laughs> Mhm. ñu gis ne ci jamono njëkk yi ba léegi. Mhm. Euh, maam ñi dañ ko daan utiliser. tey it euh, ñaare néew na lu mu daan lor li mu daan jariñ moo ëpp ndax man man gis naa sama maam. Mhm. sama maam lool loolu mu ngi tudd njafaan njafaan. dañ daan jël ay ay xob yu bari ak ay reen yu bari boole ko baxal ko teg di ci naan. même soo xoolee ci yeneen feebar ak yeneen prévention yu bëri aussi. je suis d'accord euh, dafay dafay am mais loolu loolu. loolu lan moo tax euh, maanaam ci réew mi ak loolu ni mu baaxee te garab yooyu ci bëri aussi mu ngi wàññeeku di kii mënuñu ko valoriser wala mënuñoo xool yéen noo leen waxtaan euh, waxtaanee ci seen biir ba ñu jël ko def ko loo xamante ni lu am njariñ lay doon. Mbaye merci gis nga d'abord. Mhm. jàppante wuñu ah comme mhm. j'ai dit ñoom en ñi nekk dans ce milieu là dafa am benn méfiance bu ñu am si mhm. mais c' normal peut être parce que euh, bokkuñu ni ñuy xalaate mhm. xam nga aussi euh, dafa am lu ñuy tuddee xam-xam. Mhm. xam-xam dafa war a sedd xam-xam dafa war a leer. leer surtout. te xam-xam dafa war a jariñ. xam nga li nga wax ni. du may la d' accord ma damay d' accord en partie. léegi dama dama la garab dafa war a am ñetti dose. boo jiwee nga jël euh, xasum looro. ñu ne la kaas bi est-ce kaas boobu xam nga yow principe actif maanaam li faj dose bi ci ne ñaata la <laughs> xamoo ko est-ce que dose toxique la xamoo ko mooy problème bi rek dosage ba rek mhm. boo leen demee ba nga xam ni parce que ñun booy génn da ngay waat hmm. nous sommes ñun suñu liggéey y a des dañu ñun dañu wax ñun suñu suñu métier mooy andi sécurité sanitaire. ah si ah la sécurité sanitaire de Sénégalais. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax leen wax leen li ngeen di def wax ñuy baaxul. mais bala ñu koy jox nit nañ ko saytu bu wóor que ni kii bu ko naanee. dosage bi leer dosage bi leer na. yeggul ci dosage toxique. ba pare ñu ne tamit seen garab gi xam nga boo jëlee xasum loore. mun nga am benn principe actif bu tudd A. Mm-hmm. mais am na beneen peut bu nekk bee yoo xamoo ba xam bee bi bee bi lu muy def ci biir boo ko naan def ak yow da ngay naan rek mm-hmm. mais bee day dugg ci biir lijjanti li muy lijjanti tamit mm-hmm. xamoo lu muy yàq xam nga fii du ñu fay auto du ñu def ay autopsie mais xamoo ñaata nit ñoo fi gaañu parce que dañu dinañu naan garab parce que seen rein yi dañoo yàqu rek. defuñu kii aujourd'hui te lépp day revenir ci automédication. Mhm. aujourd'hui maladie chronique yi nga xam ne dafa am Sénégal surtout bi ñuy wax insuffisance rénale. insuffisance rénale. insuffisance rénale mi rey sénégalais. médicament lan médicament parce que médicament. Mhm. encore une fois ak garab yooyu ñu naan. Mhm. c'est des bu am na ci yoo xam ne mën nañu créer loolu ay. Ah, yu baax. du ko def. parce que ci biir notice bi médicament yu mooy médicament mbedd mi voilà mais bu dee médicament bi ngay jaay dañ naan la. Hmm. dose bi dafay dafa yàq rein bi. Hmm. donc doo ko doo ko we laal. donc il est important que. Hmm. booy bu nga xam yow yow wóolu nga li ngay def ñoom bu dee wóolu nañ li ñuy def. au niveau de la la l' agence de régulation pharmaceutique. dañu mm. on est pour dimbali ñu def ay ay mm-hmm. ba ñu saytu ñoom li ñuy def bu baax. Mm-hmm. mais ñoom lañu defee nañ dañu leen di concurrence loolu duñu ko defee. Mm-hmm. or que loolu bokkuñ ci. <laughs> alors docteur xam naa ne li ñu cëraloon ci waxtu boobu daanaka jeex na tàkk ba dugg nañ sax si temps wu euh, Pathé mais euh, dafa am question bu nga xamante nii peut-être euh, dañ ma ko yónnee léegi léegi. et les femmes se soucient de leur santé. nee nañ jigéen ñu bëri dañuy jël ay ay ay. ay médicaments. Mhm. di ko naan pour yokk soit seen i partie comme seen i euh, ay rondeur yi quoi rondeur yi wala ay ween am na ñoo xam ne sax dañ koy naan pour am mhm. yaram mhm. léegi euh, garab yooyu ñuy naan di naan di naan di naan à la limite day est-ce que day def ay effets secondaires. et puis est-ce que est-ce que bon nga baal ma Aïcha est-ce que ci garab yooyu noonu am na yoo xamee ne que yéen yéen a ngi ciy defar fii ci Sénégal garab yi muy wax nii parce que gis nañ commercialisation bi c'est intense quoi c'est viral sur TikTok est-ce que yéen da ngeen ciy defar yooyu noonu ci Sénégal dem na léegi docteur ba am na ay gélules am na ay gélules yoo xam ne dañ koy naan am na yoo xam ne dañ koy suppo mhm. am na ci yoo xam ne dañ koy taf ci seeni ay jumbox pour wàññi di dégraisser comme ñenn ñi di ut yaram ñenn ñi tamit ñuy dégraisser donc yooyu yëpp si si même loo bi lañ koy boole rek mhm. à la limite est-ce qu'il y a des conséquences bien sûr il y a des conséquences euh, il faut comprendre que lépp dugg si biir yaram day liggéey maintenant liggéey bi ban lan la fay bàyyi foo ñu saytu ko lu koy saytu nag mooy li ñuy tuddee étude préliminaire am dañ koy dugal xam nga dañ naan la euh, ay souris maanaam dañuy dafay test ci ay souris yu xool mhm. di yokk dose bi di xool nit su ko jël lan lay bàyyi donc loolu ñu gis ci souris bi moom moo ñu xool ni bu duggee ci nit moom lay def mhm. bu ñu ko joxee souris muy yàq euh, rein yi moo bu ñëwee ci nit ki tam da ko yàq mais boo jëlee famille dañuy jël bon li mbay après mooy parce que même chose la mhm. euh, dafa am bi may bi may garab boo xam ne da koy wax muy tudd si pour heptadine euh, femmes yi d'habitude moom la jël pour mun a am yaram. Mm. effectivement ñun bu ñu defalee kii bi euh, li ñuy laaj régula régulation bi ko defee. Mm-hmm. garab googu fii ak ñu defar ko fi amul benn problème. donc a tout ce qu'il faut pour faire ça. jërëjëf euh, question bi du tax mu am solo mooy xam nga yàlla ni mu bindee nit. Mm. daf ko defar defar boo xam ne. perfection la maanaam amul leen lu ciy wàññi wala ci yokk. Mm-hmm. extraordinaire. ku nekk lu ñu defar rek loolu yow yaa décidé léegi nga ne damay. changer. waaye yow boo changé. mais changé nga équilibre. ah oui ah ci fekk yow la tamit. mi ngi doon mm, maintenant après garab yooyu parce que comme je di dis euh, c'est pas parce que pour pharmacien Ndiaye moo tax ñun suñu waat sécurité sanitaire la boo changé sa équilibre yaram. Mm. forcément. dafay am ay conséquences. c'est pour cela même boo amee yaram kay feebar yi mu la mun a gën gënal parce que da ngay yokk ndox force donc hypertension da lay da lay da lay yomb. Mm-hmm. ah sa sa sa sa sa nu ñu koy waxeeti euh, yàq yi. Mm-hmm. doo doole bi day wàññeeku. mais li nga xam ni moo am solo mooy que il faut léegi yow pour nga am état bi nga bëgg nga koy continuer. Mm-hmm. parce que garab bi saa yoo ko bàyyee rek mu rës mu créé feebar. <laughs> kon éternellement nga koy jël. bi la soo bëggee résultat bi nga bëgg. il faut le prendre de façon continue. alors euh, docteur euh, Sow c'était vraiment un plaisir de de recevoir sur le plateau de Petit Déj xam-xam bi yaatu na et puis ñu ñëpp jëriñu na ci di la jaajëfal bu baax a baax di la joxaat dig daje prochainement rek xam naa ne incha allah gëm di gën ko yaatal. Ah, c'est moi qui vous remercie et j'étais heureux de partager donc ce plateau avec. Euh, Thiam. Mm-hmm. Eh, xam naa ni bon ndekki Mbaye Babacar Pathé. Eh, <laughs> vu que revendication ñaari ngeen tegal état nii. Mm-hmm. maanaam balaa balaa balaa balaa balaa ñaari semaines yi wala boog suba su wala tey bu ngeen gisee ak ñoom ñu matal ko benn parce que loolu moom mooy sunu mm-hmm. sunu sunu sunu ndam. moom mooy moom mooy sécuriser Sénégal. parce que nit ñu mel nii. maanaam peut-être sax bëri nañ ci réew mi mais li ñuy communiquer bëriwul. xam nga donc il est important aussi que bu ñu amee euh, maanaam ay. ay kii yu mel nii waaw ah mais docteur neen waaw ah non da war di génn. parce que invitation <laughs> xam nga mais mais ah c'est important très important en tout cas merci beaucoup ñun aussi.